Moussa Kombo euh, dëkk fii si Ngent nekk euh, administrateur mouvement Front Patriotique Bokk Xalaat affilié à l'APR si euh, élection législative yi tey dañu amoon réunion fii ci Ngent si cadre comité électoral u Ngent Thiès Nord réunion bi nag c'est une euh, réunion ba nga xam ni dañu woote pour euh, waxtaan ak euh, militants yi waa ngent yi pour préparer mieux préparer élection législative yi femmes yi ñëw nañu adultes yi ñëw nañu jeunes yi ñëw nañu liñ fi jot a développé moo di li nga xam ni moom la ñu sant militant pour ñu def ko pour que ñu mën a gagner le centre de vote Issa Deme ndax Ngent euh, nekk na quartier ba nga xam ne ci Thiès Nord moo ëpp problème ci quartier dix-neuf quartier yi nekk yi fii te problème yi fi nekk yëpp mairie bi amul benn benn benn benn problème ba nga xam ne mën na ko régler soo ko waxee mu ne état bi mooy régler loolu comme état mooy régler loolu léegi ñun woo nañu ñii ñii leen woteel leen APR comme ça bu ñu gañee mairie euh, lii le vote bi état bi mën ñu dimbale si inondation yi nga xam ni am na fii ci zone bi parce que am na ay famille yi nga xam ne sonn nañu inondation yaa ngi fii amuñu ay tali bëgg nañu poste de santé suñu poste de santé mi ngi ci ndox mi soo fa demee di fayu da nga fay ay feebar. bëgg nañu lycée bëgg nañ defar terrain de football aussi yooyu yëpp bëgg nañ ko te mun ñu ko am donc boo demee si état bi man ça fait cinq ans maa ngi topp ci mairie bi pour ñu ñu ñu defar terrain mënuñu ko defar ils ont refusé de faire ah pour nettoyer rek nettoyer alors comme état bi moo ko mën defar léegi ñun état bi la ñuy woteel pour mu jàppale ñu defaral ñu yooyu pour que nit ñu au moins cadre de bi sax mu tari courant bi manqué na. ah ndox mi am na nga xam ne ba léegi si boo demee boori kanaal ba amuñu ndox ah boo demee coonaax ndoxu teen nañu naan mais c'est extraordinaire ah cimetière yaa ngi foofu kenn kenn kenn kenn mériwu ko ah ay affaire nga xam ne c'est te mun ko am donc femmes yi dajee nañu d'accord nañu ci li leen proposé nee ñu ñoom dañuy votel APR la ñuy votel te man personnellement Moussa Kombo maa ngi demandé à que tout ngent voteel APR bu ñu voteelu apper man dan ma jaaxal trop parce que mën ñu voteel ka nga xam ne pendant cinq ans dafa nekk fii alors defalu leen dara ah bàyyi leen si ay problème ñu fanaan si ndox mi yooyu yëpp ah kër yëpp am na ndox ça c'est incroyable donc famille d'accord nañu jeunes yi d'accord nañu ñu ngi dox euh, loolu euh, dès demain daañu dem xooli centre de vote bi cette carte yi fa nekk yi euh, ku sa sa carte ñëw nga dem nga jël sa carte parce que am na benn arrivage bi ñëw yaakaar nañu ne carte yi war na mën na ñëw léegi donc daañu fa dem seeti carte yi alors euh, dimbali ñuy jël seen carte préparer wu élection yi quoi parce que loolu nag vraiment lu lu jot la daal lu jot la. ñu ngi demandé président Macky Sall mu daal xelam xam ni daal vraiment fii si ñun Thiès Nord daañu def le tout au niveau de Ngent pour gagner élection yi waaw loolu daal laa amoon damay wax di di di remercier ñi fi ñëw si réunion bi yëpp tey le le le le dou le combien te le 16 euh, juillet 2017 di remercier ñëpp di leen encourager te di continuer di demander à que ñu gën a taxaw. ci jubóo ku nekk nag na nga def sa mbokk nga wax ko na nga wooteel fii si ngente voilà.